xam na ne mosumaa def ci vidéo di wax ci nit waaye tey nag naa ko def mariage yu jëy naa baldeeg bay Bril Five foor sama xol bi daf cee kontaan barke yu nent bi xaw ma lan la man xale bi dama ko da ni koy ni koy ni koy kii di waxee rek nday njaay dafa mel ne maa ko jot ci sama biir bi dama ko bëgg rek barke yu nent bi dama la bëgg nii carrément ndax lan ndax te yaru lum la mayul rek du la ko xañ barke yu nent bi tey yaru kenn déggulu ci dara Sénégal nañ ko génne seddel la ko tey yaru kenn déggulu ci dara man dama bëgg loolu parce que man noonu laa mel boo amee bés ñëppay bëgg barke yonent bi xaw ma la xamoo musuma dox ci mbedd sax ba tasanteeg yow waaye maa ngi lay ñaanal ci sa sëy bii yàlla na bokk ci sëy yañ takkee aras yàlla na yéex yàgg sa jëkkër yàlla na leen pikk ak peel kese tàkkale te yàlla na yéex yàlla ngeen dund ba gis seeni sëti sëti sët sëtaat bépp seytaane bu war a dugg ci seen biir yàlla na ko yàlla weer yàlla na ko yàlla toroxal yàlla bu làmmiñ mën ci yow dara yàlla bu bët mën ci yow dara borom xol bu setalay ñaanal te li ma lay ñaanal sama biir xol la jógee barke yonent bi dama dugg léegi gis mariage bi dama kontaan maa ngi lay ñaanal di la ñaanal man jajaa dama barke alxuraanu karim doo déggee ni may waxee sa xam ne dama bëgg a jooy xaw lan la man maa la bëgg rek ndax lan ndax jukko ji nga am dama koy gis ci sama bopp da nga yor jikko ju rafet da nga nekk xale bu teey nekk xale bu set nekk xale bu teey nekk xale bu dal kon bés bi boo ko amee foog nit ñi génn remercier la parce que da ko fi liggéey da ko fi ji da nga nekk xale bu teey bu dal te loolu jar na jar na jar na nit jar na am jukko ju mel noonu nit ak lu munti am teeyal dalal setal bu na kenn dégg ci dara kenn déggula ci dara nag ba tey bés bu rafet bii ñëw kon ñëpp la koy yéene.